jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci rajo réew mi FM 97 point 5 euh, ñu leen di nuyu bu baax mbokk yi ñu daal di dellu siwaat euh, tey ji si samedi ji ci seen émission pencum réew mi ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw jàll moo nekk ci wàllu technique bi mbokk yi ñu dellu am mbégte daal di nag dalal tey Alioune Djiba mu nekk mu bokk ci parti bi di PDS di ci membre ba pare tamit bokk ci fédération nationale des cadres libéraux moom invité tey euh, fas yéene waxtaanee ak moom ponk yu bari euh, Alioune Djiba ñoo ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay delloo nuyoo di kontaan trop si invitation bi nga xam ne moom nga ma jagleel sëñ a xadre voilà maa ngi lay ziar bu baax di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi déglu. d'accord Alioune di nuyu tous les militants et les militantes également du parti démocratique sénégalais. Hmm. PDS fi nga nekk nga bokk ci fédération nationale des cadres libéraux. Hmm. tey parti bi. bii nga xamante ni moom mooy euh, PDS euh, fi ñuy commencé mooy lu jëm ci euh, wàllum wàllum fichier électoral bi. Mhm. jàpp nañ ne ginnaaw bi ñu defee lancement bi nga xam ne moo jëm ci wàllum audit bi ñoo ngi ci dernière ligne droite bi yéen PDS lu jëm ci wàllum fichier électoral bi ak wàllum audit bi lan moo ci seen xalaat ak lan moo ci seen taxawaay. waaw merci beaucoup Abdou Khadre euh, fan yi euh, si passé amoon na benn lettre bi ñu adressé au ministre de l'intérieur pour xamal ko ni euh, ñun waa PDS dañu war a bokk si li nga xam ne moom mooy audit du fichier parce que mënuñu nekk le premier parti de l'opposition au Sénégal ñu am un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale alors que mënuñu bañ a bokk si li nga xam ne moom mooy saytu fichier bi parce que dañoo jàpp ni euh, suñu rôle la ñun parti en tant que parti de position ñu bokk si parce que waruñu mën a jël PDS ba ko méngale ak yeneen parti yi nga xam ne ñu ngi si beneen pôle ñun pôle bi nga xam ne moom la ñu nekkoon muy front ba dañ fa génn ñu ngi dañoo suspendre suñuy activité foofu donc ñun mënuñu aussi en tant que parti responsable ñu dem bokk ak kenn pour ñëw défendre li nga xam ne mooy suñu position donc defe na su doon nguur bi bëgg na respecter li nga xam ne moom mooy le parti démocratique sénégalais si li nga xam ne moom mooy. position euh, euh, mais mais yéen tim da ngeen jàpp ne yéen kese yéen fii parti ko yéen waa PDS yéen kese ngeen. fi parti waaw non waxuñu euh, parti parce qu'il y a au moins trois cent et quelques mais mais su ngeen di wax ngeen di wax mais su ngeen di wax da ngeen di yooyu yëpp da ngeen koy wax. di kay mel ni luy kañ seen parti. te yéen wax na yéen ñëw leen ci dialogue national bi ngeen lànk. waaw mais loolu loolu mooy dëgg Abdou parce que euh, tey Sénégal ñëpp xam na ni le PDS même buñ la buñ ko waxul ñu nit mais Sénégalais yëpp xam nañ ko xam nañ nous sommes le premier parti d'opposition xam nañ ni également le avec un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale alors c'est notre droit légitime ni li ngay de participer si li nga xam ne moom mooy audit du fichier électoral loolu c'est tout à fait normal am nañu suñu point de vie si li nga xam ne moom la nguur bi di di di jéego yi nga xam ne moom la bëgg a jël si si si si si si fichier bi donc euh, mënuñu def lu mel ni audit te ñi nga xam ne ñun ñoo njëkk fii Sénégal ñu ñu ñu dénoncer li nga xam ne moom mooy euh, élection yi passé si si élection législative yi dénoncé nañ ko si élection euh, li nga xam ne mooy euh, mooy première élection yi nga xam ne moom mooy locale yi aussi on l'a dénoncé ba ñu génnee suñu livre pour won askan bi ni am na ay manquement si élection bi euh, di doxe mais tey ñun jàpp nañu ni euh, li nga xam ne moom mooy dialogue national certes ñun bokkuñu si mais li nga xam ne moom mooy dialogue politique bi nga xam ne mooy l'audit du fichier ñun c'est ñun parti démocratique sénégalais ñun war nañ si mën bokk pour mën a joxe suñu point de vue. mais yéen si bokkul yéen bokk mais yéen si bëggut bokk Alioune. si bëgg nañ si bokk parce que suñu bëggoon a bokk kon ñun parti bi duñu jël suñu bik ak suñu fay bind li nga xam ne moom mooy euh, ministre de l'intérieur pour xamal ko ni. mais booba fekk na booba fekk na béy wéy na mbuus waaw mais c'est-à-dire que dafa amoon li nga xam ne moo ko jiitu situation boobu euh, daf ñu fekkoon ci benn front front boobu nag ñun bokk ñun dañoo suspendre suñuy activité bokk donc li nga xam ne ñun dañoo téye suñu bopp mais am nañu droit tey dem ba ci biir taxaw ne bëgg nañu bokk kon lu ministre de l'intérieur war na def le plus rapidement possible de donner son avis xamal ñu ne évidemment nous sommes d'accord pour ça mais mënuñu yónni un quelqu'un que Benoît Sambou mu ñëw si ce pour ñëw négocier ak ñun pour ñu mën a ñu mën a bokk si beneen quelconque bu joxe avion si beneen quelconque pôle loolu mënul nekk parce que nous som un parti responsable nous sommes le premier parti d'opposition au Sénégal donc jàpp nañu ni euh, dañoo war a bokk si li nga xam ne moom mooy audit du donc ñun PDS dañoo ne lépp li nga xam ne jógee na si audi si fii si kii bi saytu euh, fichier bi te ñun bokkuñu si ñun euh, ñun dañoo rejeté li nga xam ne moom moom mooy résultat yi fa jóge parce que mënuñu comprendre un parti comme le parti démocratique sénégalais n'est-ce pas euh, de vingt six ans d'opposition xeex pour les libertés démocratiques dans ce pays n'est-ce pas kooku mënuñu concevoir que ñuy def li nga xam ne mooy audi du fichier sans pourtant ñu bokk boo xoolee bu baax en quatre vingt boo gisee ñun ñu xeex du temps de Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade dafa xeex ba 92 dañu def le code consensuel de 92 c'est ce code consensuel de 92 bi nga xam ne moom la ñu demee élection n'est-ce pas en 2000 moom moo indi la première alternance ba Abdoulaye Wade woo Abdou Diouf félicité ko la deuxième fois mooy deuxième élection en 2012 bi nga xam ne moom la Macky Sall gagné ba Abdoulaye Wade woo nu mu tudd nu mu tudd comment dirais-je Macky Euh, di ko félicité beneen bi Abdou Diouf Ablaye Abdou Diouf moo woo Ablaye Wade bii nag 2012 Ablaye Wade moo woo Macky Sall donc ça veut dire que ce code il est bon alors comment se que Macky bu mu ñëwee il a désorganisé n'est-ce pas fichier bëgg a créer beneen bu bees loolu moo lay woon ni am na si gannaaw li nga xam ne lu si laxasu mooy manquement yi nga xam ne moom la Sénégalais yëpp constaté si élection yi nga xam ne nit ki dem ba si bureau mënul voter mu ñu ñu bind numéro bureau numéro un mu ñëw ba si bureau numéro un fekk ni turam new ko. mais Aliou cetera et cetera. mais Aliou est-ce que yaa ngi wax ne PDS parti bu euh, bu responsable la. est que mm-hmm. tey par exemple tey bu doon parti bu responsable euh, moom ngeen amee ba léegi nii euh, di ngeen génne seen bopp ci dialogue politique bi dem bam mu yàgg ngeen bëgg cee duggaat kon ça veut dire que décision ba ngeen njëkkoon a jël du décision bu baax. non décision bu ñu njëkkoon a jël c'était la bonne décision parce que dañoo bokk dañoo bokkoon ci benn front front bi gis ngeen ne Macky Sall daf leen emballé si li nga xam ne moom mooy dialogue national bi te tey ñu gis nga leen la pour la majeure partie ñoom ñëpp ñu ngi rejoindre le président Macky Sall. yéen da ngeen a jàppoon da ne da ngeen a jàppoon ne front boobu dañuy diil ak mais loolu wax nañ ko waxaat nañ ko musoon naa ñëw sa débat ma ne la ñii dañoo deal ak Macky Sall donc ñoom seen bopp tey euh, bàyyi nañu Ablaye wat bàyyi nañu parti démocratique sénégalais ñu dem rejoindre Macky Sall si li nga xam ne moom mooy gouvernement d'union national bii nga xam ne moom la Macky Sall teg mais loolu c'est c'est connu de tous les sénégalais parce que euh, le parti démocratique sénégalais alerté woon na n'est-ce pas ni ñun duñu bokk si dialogue national donc loolu mooy li ma la wax ni mooy diil yi nga xam ne moo newoon si suuf. d'accord te leer na nañ. léegi yéen léegi lan ngeen bëgg yéen waa PDS. ñun lu ñu bëggu se très simple ñun lu ñu bëgg dañoo bëgg bokk si li nga xam ne moom mooy élection euh, moom mooy euh, audit du fichier bi nga xam ne moom la moom la ñu moom la ñu lal. waaw moom la ñu lal ñu bokk si joxe suñu avis en tant que parti responsable en tant que parti d'opposition bi nga xam ne ñoo ñoo ñoo am le le un groupe parlementaire à l'Assemblée une force politique. n'est-ce pas donc laaj na ñun ñu bokk si li nga xam ne moom mooy euh, saytu fichier bi ñu joxe suñu avis mais su loolu amut nga xam ne lépp benn bépp résultat bi nga xam ne gën na si audi bi ñun euh, ñu rek ñun dañ ko récuser totalement maanaam ñu si te duñ si am ànd ba faw. d'accord mais Aliou euh, Djiba xam nga tey ne yéen da ngeen a bokkoon ci benn front. bi ngeen bokkee ci ab front yéen waa PDS. ngeen bokk mhm. ci dialogue politique bi. ngeen mhm. dem ba mu yàgg ngeen am xel mu ñaaw ci front boobu kane am na si ñoo xam ne ñoo ngi làqatu di wax ak Macky Sall. Mhm. ngeen yéen li ngeen waroon a def est-ce que du génn. ci front boobu wala ngeen ne bi du ñoom ñoo ñu représenté si dialogue national bi euh, dialogue politique bi mais ñun ñooy représenté suñu bopp est-ce que du loolu moo nekkoon taxawaay bi ngeen waroon am. no non xam nga ñun bu ñu bokkee bu ñu bu ñu njëkkoon bokk ci kuréel dañoo jàpp ni de bon foi que ni ñi nga xam ne ñoom lañ ko sëxal c'est des hommes aussi de bonne foi. mais malheureusement bu ñu demee ba si biir xam nañ ni ñi nga xam ne ñoom lañ ko sëxal ñu ngi nas ci suuf li nga xam ne ñun suñu euh, suñu suñu xel euh, rafetlu ko donc ñu jàpp ni loolu du jëmaloowul noonu front bi si kanam parce que dañoo choisiroon si ñaari éléments yi nga xam ne ñu dugal leen si si si dialogue pour si kii bi nu mu tudd pour di du fichier mais bu ñu leen dugalee mais sans pour autant consulter le PRS ñun dañoo jàpp ni loolu un c'est un manque de respect et deuxièmement kon gars yi am na li nga xam ne moom la ñuy lal te euh, loolu ñun xam ñun ñun ñun jëliwoon nañ ko bu yàgg ah. parce que euh, on avait déjà alerté parce que Ablaye Wade waxoon na ki nga xam ne moo yoroon moo nekkoon coordination parti bi ne newoon na ko bul dem si dialogue bi nga xam ne moom la mooy dialogue national bi mais loolu tax na moom dafa dafa insister jógee foofu dem si dialogue national bi waaw sans pour autant mu déglu li nga xam ne moom la ko moom la ko suñu suñu secrétaire général national wax. d'accord donc kooku bu defee loolu nga xam ne il il a il a comment dirais-je il a dépassé les limites donc de ce fait que ñun parti démocratique sénégalais en tant que parti responsable am nañu droit ne dañuy suspendre suñuy activité am nañu droit ñu toog xoolaat bu baax li nga xam ne euh, moom mooy déroulé si biir si biir Sénégal. mais waxuñu encore une fois. ñun duñu dem si si li nga xam ne moom mooy euh, nu mu tudd audit du fiche dialogue politique parce que xam nañ ni loolu c'est pas le dialogue national ça n'a rien à voir parce que lii c'est affaire d'élection mais léeg-léeg c'est autre chose c'est le deal qui a été concocté par Macky Sall ba ñi nga xam ne ñoom la ambale ak groupe boobu yëpp pour mu pour ñu mën koo rejoindre donc gis nañ ko sénégale yi constaté nañ ko tey euh, ñun am nañ dëgg si si li nga xam ne si ñoom donc. Euh, mais Aliou pour moi y' a mais Aliou yéen euh, yéen waa PDS fan ngeen teg ne bu ñu associé wul. li nga xamante ni tey moom mooy parti politique yi ci li nga xam ne mooy audit fichier bi rawatina parti bi nga xamante ni tey moom mooy PDS yéen ngeen ngeen tuddee ko sax Euh, parti bi gën a représentatif ci Sénégal lan moo tax ngeen ne buñ si boolewut parti politique yooyu rawatina pedes transparence du si am mënut a garanti transparence bi waaw ma man je pense que euh, en tant que bu doon yow par exemple parce que Macky Sall moomul élection yi Macky Sall euh, le moomul euh, le calendrier républicain moomul bon moom daal lépp li nga xam ne jamee na ci élection Macky Sall moomu ko c'est le peuple bi moom moom li nga xam ne lu mel noonu donc la peuple muy man muy yow muy keneen képp ki nga xam ne sentir na ni am na li nga xam ne war na ko mun a apporter pour la transparence n'est-ce pas du fichier kooku je pense que loi may na ko mu mun a assister donc mais du tee ñun en tant que parti démocrate parti euh, le plus grand parti de ce pays laaj na ñun ñu mën a bokk parce que ñu xool li nga xam ne moom mooy euh, euh, moom moom la ñuy saytoo fichier bi parce que ñun n'oublie pa que ñun ñoo njëkk taxaw ne il euh, y a des manquements dans ce dans fichier ba ñu génnee livre waxoon naa ko sànq donc ce qui veut dire que tey euh, bu ñu bëggoon lu leer te ñu bëgg affaire yi jaar yoon ñoom moomuñu élection moomuñu leen waroon nañu mën a ne effectivement vous avez le droit d'être la et puis pour donner votre avis sur la sur la question man gisuma ci benn problème gisuma si benn problème à moins que ñoom ñu bañ ñu ñëw joxe suñu avis wala ñu mun a gis euh, découvrir li nga xam ne moom mooy njuuj njaaj nga xam ne moom la mu war a mun a nekk si fichier bi bu doon bu rek <laughs> bu doon pour transparence rek moi je vois aucun problème à ce que le gouvernement là n'est-ce pas le biais de son ministre mu accepté li nga xam ne moom la PDS demandé. man gisuma si benn problème parce que parce que parce que transparence boobu noonu comme mooy indi jàmm. kon moi je vois pas le problème nañu woo PDS PDS ñëw toog bokk si mbir mi wala suñu bokkul <laughs> mais naka la ñuy mënee reconnaître li nga xam ne euh, ñun bokkuñu fi comme on dit en politique ce qui se fait euh, sans moi est contre moi donc moi je pense que si le PDS va jusqu'à demander à ce que mu bokk man je pense y a aucun souci à se faire waroon nañ mën a jël euh, li nga xam ne moom la moom moom mooy demande parti démocratique sénégalais parce que du temps de temps de comment dirais-je Abdou Diouf bu ñu defoon le code consensuel de Kéba Mbaye de 92 mais après cela Abdou Diouf dafa ne ku mu neex nodd waaw avec le multipartisme et autres donc ça veut dire que Abdou Diouf au moins si côté démocratie amoon na benn avancée bi nga xam ne euh, defoon na ko waaw mais grâce à la lutte bi nga xam ne moom la Ablaye Wade def pendant pendant plusieurs années. waaw d'accord mais euh, euh, voilà mais Macky dafa reculer la démocratie. si si si si lu garaaw a garaaw. d'accord mais Alioune yéen bi ngeen bindee ministre de l'intérieur. Mm-hmm. Euh, ngir ngeen bokk ci li nga xamante ni mooy élection yi da ngeen ko doon saraxu pour bokk ci wala da ko doon neexal wala da ngeen a jàpp ne da ngeen war a bokk par force ak bi ngeen ko bindee lan la leen tontu. non ñun amuñu lu ñuy neexal euh, ministre de l' intérieur amuñu lu ñuy neexal aussi parce que ñoom moom ñu li nga xam ne mooy élection yi ñu li nga xam ne mooy fichier bi fichier bi sénégalais yi ñoo ko moom c'est le fichier des sénégalais donc man gisuma si benn problème donc ñun PDS ñun saraxuñu <laughs> ñun ñu une fois duñu parti bi nga xam ne dañuy saraxu keneen ah duñu saraxu kenn ñun c'est notre droit ñu am suñu sañ-sañ bind lettre ne ko ñun dañoo war a bokk si li nga xam ne moom mooy euh, mooy audit des fichiers donc euh, y a pas de y a pas de. lan lañ leen tontu. waaw présentement dégguma benn réponse li nga xam ne moom la ministre bi wax. Euh, mais jot na ci waaw. mais jot na ah, ci ah. jot na ko waaw jot na ko. d'accord jot suñu suñu secteur chargé des des des comment dirais-je bi nga xam ne moo yore euh, élection yi euh, dans notre parti chef de docteur Chedia barki demb rek wax na ko. mais yéen mais yéen euh, doon ngeen wax tamit lu jëm ci wàllum euh, réformer li nga xamante ni tey mooy ay loi jëm ci euh, jëm ci élection yi tamit loolu tamit lan moo ci sa xalaat. waaw réformer ay loi si si si mbirum élection bi man je pense que loolu yëpp lan moo ko war a mun a mun a mun a saafara mooy ñu bokk si li nga xam ne mooy audit bi ñu joxe suñu avis parce que aussi euh, li nga xam ne ñoom décision yi ñuy jël foofu si groupe bi nga xam ne ñoom ñoo nekk di di saytu mbir mi euh, je pense que en temps en temps normal war nañu mën a permettre ñun aussi que du li nga xam ne réforme sur les lois et tout loolu ñu koy wax je pense que war nañu mën a permettre ñu mën ko wax si euh, dialogue politique bi. d' accord mais Alioune Djiba mbokk yi moom la ñu invité tey ci seen émission pencum réew mi ci rajo Réew mi FM mu nekk mu bokk ci parti bi di PDS bokk ci kuréel. ki nga xamante ni tey moo ëmb cadre yi mooy fédération nationale des cadres libéraux <coughs> euh, Alioune yéen mm-hmm. euh, Toussaint Manga fan yële jàll moom euh, doon na jàpp daal ne complot moom mooy moom mooy am ci li nga xamante ni daal moom mooy fichier électoral bi ndax moom jàpp na ne cabinet bi ñu ko jox sax waruñu ko koo jox yéen waa PDS lu ñu yëkkate rek mel ni ngeen bëgg saa xëpp suuf loolu moom lu ko waral waaw euh, Toussaint li mu wax euh, je suis en phase avec lui euh, parce que li tax lu ko waral parce que si euh, jamono ñu jàppee Karim Meïssa Wade je pense que mooy cabinet bi nga xam ne moom mooy moom mu la ñu jël tey pour mu mun a saytu mbir mi cabinet boobu moo demoon def moo demoon def benn rapport pour wax ne effectivement Karim avait de l'argent planqué et cetera et cetera alors donc bu mu waxee loolu donc ñun dañoo jàpp ne bu bu bu eh si tant kii la le substitut du procureur eh, mooy Félix Antoine Diome moo nekkoon en ce moment le du procureur tey bu nekkee le ministre de l'intérieur alors mu jëlaat le même cabinet donc ça veut dire que y a anguille sous roche ñun suñu xel dina tey parce que kële moo accusé woon suñu candidat moo ñëwaat encore pour def audit du fichier n'est-ce pas en collaboration avec euh, avec l'État donc suñu xel dina si dina si ñaaw en plus moom expertise bi nga xam ne moom lañ ko xamal n'est-ce pas moom da koy dem jëli ji bitim réew donc <laughs> lu mel ni loolu je pense que <laughs> il est tout à fait normal qu'on ait des doutes n'est-ce pas sur ce cabinet quoi. da mais yéen euh, est-ce que am ngeen xel mu rafet ci Antoine jom sax ngir mu nekk ministre de l'intérieur ndax xam ngeen ministre de l'intérieur moom. Euh, mën nañu wax sax ne élection ci loxoom lay loxoom lay tegu te yéen gis ngeen fi mm. Antoine Diome jaar ak yéen. Mm. waaw Antoine Diome euh, <laughs> moom ñun xam nañ ko ah. parce que en fait mais euh, xam ngeen ko mais yéen itam xam ngeen ko. waa <laughs> d'accord. Euh, ah, c'est xam moom itam xam na leen. non mais c'est vice versa. Uh-huh. <laughs> c'est vice versa il il est évident que Antoine Diome moom on le connaît dans le projet de Karim amul lu mu yekkalul suñu suñu candidat si jour kii bi nu mu tudd mooy mooy kii bi. créé bi waa CREI bi jël euh, ay kaddu yu yu ñaaga sax teg ko ko vraiment donc euh, ce qui veut dire que <laughs> ñu Antoine Diome comme on le connaît alors euh, moo tax ñun aussi on est on est trop on est trop sceptique sur parce que dañoo daman pour man ah pour man personnellement dama jàpp ni Antoine Diome est venu pour une mission parce que wax naa ko ci benn débat te mission boobu tant que yeggaliwu ko n'est-ce pas Antoine Diome am jàmm ak suñu président donc nekkoon na substitut du procureur mu am benn rôle bu mu joué mu ñëw gën foofu noonu nekk aujourd'hui le ministre de l'intérieur et tey boo xoolee bu baax sénégalais yi tey dans la plus grande majorité dañoo jàpp ni n'est-ce pas c'est une manière de le récompenser alors donc euh, sur ce plan-là moi je pense que avec euh, n'est-ce pas le cabinet ERA bi nga xam ne moom la Toussaint Manga Manga Manga Manga wax moi je pense que il est tout à fait normal qu'on ait des doutes sur lui sur lépp li nga xam ne moom lay def quoi parce que gis nga ñu ne Euh, nit par exemple bon xaw ma nuñ koy comment on le dit en wolof n'est-ce pas on peut mun munoo munoo nit ki munul nekk si benn affaire mu mu mu mu mu xeex la tey mu tourné nekk si beneen affaire kooku tamit munu munul munoo nekk xaritam il va continuer toujours. à à te combattre ñun loolu lañ jàpp. te Antoine Diome. Mhm. du ki nga xam ne moom mooy ñëw pour euh, pour pour régler problème euh, problème opposition. il mais est là pour mais lan ngeen ci man mais Antoine euh, ñoo ngi fi audité fichier électoral bi jamono ji euh, te li ñu gis tamit Alioune mooy ci opposition bu Sénégal gis nañ ne waxtaan waxu coronavirus bi am na solo yeneen débat yi mais. Euh, lu jëm ci wàllum taxawaay. pour ñu hmm. càmbar fichier électoral bi jàpp naa ne. soo xoolee hmm. taxawaay bi des na ci opposition bi. te mën nañoo hmm. wax ne ñi ko war a auditer moom ñoom pare nañ ngir auditer fichier bi léegi te bu ñu ko xasee boo auditer ba pare. yéen mënatu leen ci dara même su dee day day da ci bañ a ànd. waaw euh, question bi bàyyi. waaw dama ne dama ne euh, li nga xam ne mooy fichier électoral bi. Uh-huh. ministre bi moom wut na ay experts yoo xamante ni ñoo ngi koy auditer. Mhm. opposition bu Sénégal taxawaay bi nga xam ne moom la ñu war a am ngir ñu saytu fichier électoral bi ngir ñu boole leen ci ñi nga xamante ni tey ñooy contrôler ak di ko fekkee bu ñu leen ci boolewul dem ba audit bi pare euh, doot leen ci mënati dara. waaw mais duñ si mënati dara mais mën nañu récuser li nga xam ne tout résultat qui sortira de cette de que <laughs> mais wax nañ ko parce que aussi moi que pour un état li ngeen wax mooy duñu élection moo fi ñëw ngeen du ñu dem élection ci fichier boobu toogaat. comme d'habitude euh, non loolu loolu c'est une décision qu'on n'a pas encore euh, prise au sein du parti mais parti bi lu mu lu mu wax euh, c'est très clair hein et puis wax na ko waxaat ko te hier rek maa ngi suñu frère assan mu ngi koy wax san Ba donc dañoo jàpp ni ñun mënuñu mënuñu comprendre que ñiy def li nga xam ne lu mel ni di saytu fichier bi audit bi te ñun PDS mënuñ ci bokk. voilà donc moo tax ma ne la euh, tous les partis d'opposition yi nga xam ne bokkuñu si ñun PDS la ñu xam suñu bopp xam nañ ko on va récuser tous les résultats qui sortiront de cet audit et puis c'est très simple parce que aussi li nga xam ne ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp a ko bokk pour ñu pour mu leeral rek man jarul ñi nekk fii ñun sax di yuuxu di wax ni woy dañoo war a mën a bokk une fois que ñu bind lettre bi le même jour on devait quand même accepter ñu ñu bokk si li nga xam ne moom mooy audit loolu buñ ko defee moi je pense que Euh, jàmm dina ne ñooy et puis voilà le, on va aller dans les élections paisibles et transparentes mais su amul nag nga xam ne kon am na li nga xam ne moo si laxasu comme li ma la wax rek le cabinet ERA a travaillé dans le dossier de Karim avec euh, n'est-ce pas le substitut mooy le euh, la CREI donc tey tamit mi ngi liggéey ak ki nga xam ne moo nekkoon substitut di procureur muy euh, Félix Antoine Diome ñoom it ñoom lay liggéeyal tey donc xel war na mën a mën a am ñaaw njot si li nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy nas donc ñu jàpp ni euh, li nga xam ne moom mooy gën si résultat yi te ñun bokkuñu si nest pas je pense que euh, du li nga xam ne ñun waa PDS wax nañ ko mën a ah, accepté d'accord dañ koy rejeté définitivement euh, Aliou Djiba li nga xamante ni tey moom mooy démocratie ci réew réew moo gis bu ñu tuddee démocratie kenn mënu saa génnee li nga xamante ni moo jëm ci wàllum wàllum élection ñu gis ne fan yi am na benn rapport boo xamante ni génn na li mu fësal bokk na ci senegal daal euh, del euh, démocratie am euh, baaxulee noonu raw la koy yokk nag bokk na ci xañ nit ñi seen àq ak seen yelleef ak lu jëm ci wàllum dàq ak ay élection lan moo ci sa xalaat waaw man dama jàpp ni effectivement démocratie Sénégal am na li nga xam ne nit ñi war nañu mën a constater que ni recul am na fii si suñu réew parce que euh, euh, li ma li li koy li koy firndeel mooy mun ñu ñëw ba en deux mille vingt et un ñu bëgg ñëw ne dañuy woy dañuy retourner en arrière n'est-ce pas pour faire le le couplage des des élections en deux mille en deux mille vingt quatre xam nga loolu mooy wone ni en fait euh, suñu démocratie mi ngi mi ngi reculer te ñun le parti démocratique sénégalais muy ak suñu secrétaire général national Abdoulaye Wade xeex na ko pendant des années dañu obtenir li nga xam ne moom mooy le coup mooy mooy comment dirais-je le découplage n'est-ce pas de de, de des élections mooy euh, ñu élection locale élection législative élection présidentielle donc mënuñu ñëw tey ñu ne woy dañuy def couplage loolu recul démocratique deuxièmement encore li nga xam ne moom mooy élection mais combien de fois on a reculé n'est-ce pas le calendrier républicain ba tey personne le président de la République ne peut même pas respecter le calendrier républicain pour lan ñu ne woy parce que ñun ñoo laaj ñu def audit du fichier évidemment on veut l'audit du fichier mais c'est le présent qui a fait pourrir l'affaire moo tax ñu koy ñu koy repousser di ko repousser tey tous les corps yi nga xam ne mooy les maires wala les trucs députés et cetera gars yi seen mandat euh, n'est-ce pas surtout les maire ñoom seen mandat dafa jeex comme seen mandat euh, fu mu nekk nii jeex na moi je pense que il est temps quand même ñu xool n'est-ce pas naka la ñuy euh, fixer la date des élections pour que sénégalais yi mën a joxe seen pour ak ak yelleef sénégalais moi je vois que tout à fait normal soo jëlee par exemple le cas de mon candidat Karim Meïssa Wade moom qu'est-ce qui s'est passé jàpp nañ ko fii parce que a été ministre li nga xam ne moom la yeneen corps que mooy comment dire organisation internationale yi wax n'est-ce pas surtout CEDEAO dafa newoon cour de justice moo ko waroon parce que buñ koy kii annoncé dañoo waxoon Euh, il était il était il était il était bu ñu naan kii ay il était ministre bu doon dañoo jël le cas de l'annonce aussi foofu noonu ay corps de contrôle yëpp dañ ko ne Karim Wade fu mu nekk ni euh, deful dara donc dañ ko jox kiitu ça veut dire que gestion bi nga xam ne moom la daan def gestion bu baax la mais qu'est-ce qui s'est passé dañ ko jàpp n'est-ce pas kii euh, am ak ak yàlla yëpp ñu ñu ñu ñu ko de côté ñu jàpp ko ñu tëj ko rek ñu créé pour ñu mën te liñ ko jàpp c'est sur des bases que tous les Sénégalais Khalifa Sall que c'est la même chose. Aujourd'hui, n'est-ce pas, comme ils ont eu ces deux-là, maintenant ils sont en train de se lancer sur notre sur notre notre base. D'accord. mooy euh, comment dirais-je. Uh-huh. Sonko bi nga xam ne moom la ñu bëgg a créer donc xaq ak yelleef doomu aadama fii ci Sénégal. vraiment wax dëgg yàlla il faut revoir ça parce que. waaw mais Aliou euh, mais tey par exemple tey suñu ñu bëggee euh, jël élection locale yi ak euh, bu élection législative yi ak élection locale yi boole leen sànq yaa ngi wax loolu est-ce que yow jàpp nga ne président Macky Sall ak doxalin yi muy doxee jamono ji jàpp nga ne bëgg naa organiser ay élection fii ak deux mille vingt-quatre non loolu laa jàpp man dama jàpp ni euh, man euh, li man waxuma ni ko euh, ko plage yi dañ ko war a def non c'est kenn seen un membre fi nga xam ne moo bokk si ñoom muy Seydou Diouf n'est-ce pas honorable député moo ko wax donc moo tax ma ne la loolu c'est un recul démocratique. non non non non non Aliou non Aliou bu Rufisque moo ko wax mais dama ne yow. waaw doxinu Macky Sall nii ak ay stratégie yi mu teg ak ay ñooñam ni ñuy waxee. Mm-hmm. Euh, ay Aliou euh, Seydou Diouf moomu nga wax ay Ismaïla Madior Fall. Mm-hmm. Euh, bien vrai que Ismaïla Madior Fall li mu wax mooy bëgg-bëggu Macky Sall mooy mu organiser ay élections ci deux mille vingt et un yow Aliou Djiba est-ce jàpp nga ne fii ak deux mille vingt quatre Macky Sall bëgg na fee organiser ay élections. Euh, man personnellement je dis non parce que Macky Sall euh, fu mu nekk nii ñoom seen seen lay bi nga xam ne moom la ñuy teg askan bi mooy wéy waa euh, opposition ñoo laaj ñu def audit du fichier loolu lay la pour man loolu waxu yàqu la parce que su doon ñun loolu la ñu wax c'est vrai que bëgg nañu transparence mais aussi bëgg nañu élection yi quand même am à date échue parce que moo tax ñu wax ni il faudrait que ñu respecter le calendrier ñun parti démocratique sénégalais la ñu wax nañu respecter le calendrier républicain Mais jusqu'à présent, Macky, ce qu'il est en train de, jouer, faire du dilatoire, muy pousse, di pousse, di pousse. Bu ko defee, n'est-ce pas, élection du am parce que aujourd'hui, actuellement, le peuple est fatigué. te Macky xam na ni moo la gën a xam bés bu demee élection, n'est-ce pas, ñoom ils vont tomber à plat couture parce que peuple bi tey, n'est-ce pas, sonn nañ sonn bi nga xam ne. Euh, wax dëgg yàlla ils n'oseront duñu duñu duñu duñu duñu nanguwaat encore n'est-ce pas di ko di di fal ñi nga xam ne ñoom ñooy les responsables di nekk seen i seen i donc je pense que il faudrait que n'est-ce pas Macky euh, n'est-ce pas en en su doon c'est un homme démocrate mu respecter li nga xam ne moom mooy euh, le calendrier républicain. d'accord ñun parti démocratique sénégalais foofu la ñu taxaw pour le moment n'est-ce pas ba ñu gis leneen li nga xam ne euh, mooy ñëw. mais Aliou yéen nag jaaxal ngeen ma nag yéen waa PDS. Hmm. <laughs> si <laughs> mais Aliou mais luñ la jaaxal. ne. Hmm. yéen yéen hmm. wax fichier électoral. yéen a doon sàkk pour ñu audité ko. yéen ne fichier électoral bi ku ci dem élection ak Macky Sall mu gagné la. Hmm. Macky Sall waxtaanee fichier électoral bi si dialogue politique bi. ña fa nekkoon ñëpp d'accord ci audit bi. ñuy auditer fichier bi nan lañ mën a amalee ay élection ak nan lañ mën a respecté calendrier républicain bi. bon man man man je pense que yow PDS waroo la mën a jaaxal si li nga li nga xam ne moom moom moom moo kii parce que ñun euh, ñun suñu vœu mooy euh, wax nañ bañ koy wax noonu yàgg na bañ koy wax yàgg na il a failli attendre pendant plusieurs années ay années presque élection législative ak léegi yàgg na de ah buñ ko waxee ba tey yàgg na ba ñu génnee livre bi aussi yàgg na donc ça veut dire que affaire bi dañ ko bàyyi mu pourrir Macky si maanaam emploi calendrier Macky Sall mooy emploi bu muy teg. bokkul ak ñun suñu emploi moom toujours day xool naka lay mun a eh, jalgati mbir yi pour mu mun a taxaw nekk ci kanam loolu mooy wax ji ah. mais ça ne veut pas dire que ñun ñu wax ni woy dañoo bëgg a transparence dañoo bëgg a kii alors on est tout à fait d'accord sur le non respect non non non on est d'accord pour le qu'on respecte le calendrier républicain mais Macky moo pousse mooy moo am stratégie bi nga xam ne euh, voilà moo mel noonu quoi da koy pousse di ko pousse ba voilà donc euh, loolu moo tax ñu ñu taxaw ne vraiment Macky Sall euh, c'est un fait politique c'est un stratège voilà mais il n'est pas généreux comme Ablaye Wade quoi c'est Euh, Aliou Djiba yéen PDS euh, yéen a ngi wax ni yéen ay parti bi euh, gën a représentatif ci Sénégal mais est-ce que tamit du tur bi kese moo ci des ndax PDS vraiment mm-hmm. Ablaye Wade doon na wax ak a bàyyi PDS amoon ndëgër lay ñu gisoon PDS am UJTL boo xamante ne UJTL bu dëgër la am mel mooy kuréel gi amoon étudiants yi ak élèves yi ñu gis na yooyu yëpp amatuñu safara sañu amoon cadre yi ñooy xaw a wax ndànk-ndànk seen seen seen candidat mi nekku fi est-ce que PDS jamono ji réellement Alioune euh, très sincèrement du tur bi kese moo fi des jamono ji ak kàngam yoo fa jóge yëpp ak kàngam yi fa jóge yëpp waaw ci xam nga euh, ñi des euh, au parti démocratique sénégalais ñi si ëpp c'est c'est des gens yi nga xam ne Euh, ne ñoom ils étaient toujours la avec euh, Abdoulaye Wade am na ñi nga xam ne ñu ngi mais am na aussi ñi nga xam ne aussi dañoo jógee si yeneen parti ñi ñëw si parti démocratique sénégalais ay jeunes ay femmes euh, des mouvements de soutien gars yi actuellement ñu ngi jógee si yeneen yeneen gox yi di ñëw bokk si si si parti bi tey boo xoolee tey suñu secteur national chargé de sécurité bu mu defee tournée mais dañoo constaté au niveau de Dakar mais partout hein les gens les hommes les femmes ñoom ñëpp dañuy ñëw. Euh, uy yi ki nga xam ne mooy parti bi donc euh, ñu jox leen le message parce que tey suñu suñu objectif premier bi nga xam ne moom la ñu war a mën a mën a taxaw mooy le renouvellement des instances loolu mënul am tant que jaayuñu carte yi te commencé woon nañ ko def carte yi déjà ñu ngi fii à la permanence ñëw nañu commencé ne woon nañu def euh, tournée mais avec la Covid euh, on a suspendu on a suspendu les nos, nos activités donc ñu avec le, bah, suspendu nos activités grâce, n'est-ce pas, aux, aux mesures prises par le, par le, par le président Macky Sall. donc loolu moo tax ñu taxawaa mais le parti démocratique sénégalais est bel et bien vivant ñi nga xam ne ñoo fi nekk euh, c'est des gens qui sont dits n'est-ce pas ñu ñu parti bi voilà comme ñun comme ñeneen ak ñeneen ñu nekk si biir parti bi. waaw parti bi wax dëgg yàlla. tour bi ngay wax noonu. moo tax ñu am euh, UJTL mi ngi dund UJTL Toussaint Manga ngi koy coaché bu baax. voilà rencontré nañu waa Jeunes Indigèles au niveau de la permanence nest pas si si si si si vente si si vente des cartes yi avec euh, le secteur chargé des structures Saliou Dieng à qui je salue au passage euh, rencontré nañu les femmes libérales rencontré nañu ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir parti bi waaw mooy les les structures euh, euh, yi nga xam ne de base yu nekk ci biir parti bi comme l'UJTL les arabisans les femmes entrepreneurs, etc. Les mouvements carimistes, on les a. Voilà. Donc, ça veut dire que le parti est en train de vivre. Tey boo xoolee même dans les réseaux sociaux yu mel noonu n'est-ce pas parti bi ngay gis rek ñuy ñuy ñuy wax seen xalaat di di donc ça veut dire que le parti aujourd'hui est bel et bel vivant ñi dem ñi dem ce sont des ce gens qui devaient partir n'est-ce pas parce que les Sénégalais ont compris que tous ces gens qui étaient partis c'était des gens du temps de Wade amul lu ñu bénéficié wul si parti démocratique sénégalais parce que Ablaye Wade il suffisait d'un décret mu nommé leen mais tey comme amuloon décret ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ils l'ont lâché ñu dem rejoindre Macky tey ñoo boo xoolee l'entourage de Macky li si ëpp c'est le parti démocratique sénégalais bis ñoom ñoo ñoo newoon si <laughs> Ablaye Wade. mais Aliou mais Aliou mais <laughs> Aliou mais Aliou voilà mais Aliou Aliou mm-hmm. Djiba mm-hmm. parti démocrate sénégalais ma ngi ma ngi dund. Mm-hmm. xam nga dund gi kenn kenn wérantiwu ko. mais mën naa dund dund gu wereyaan. tey dund bu dund gu wereyaan mm-hmm. Mm-hmm. maanaam dund goo xamante ni daal euh, mm-hmm. euh, la yàlla xam doy na waaw non non non non non xam nga opposition Aliou xam nga opposition nii la mës a fonctionné ñun non non mais ñun tey waaw ah, ñun tey tey tey boo xoolee boo sa boo rappelé wul à l'époque bu ñu naan def mobilisation au niveau de la place de bu ñu nekkee opposition ni ah déjà mais <laughs> soo gisee soo xoolee ba ñun rek gis le parti démocratique sénégalais day taxaw défendre li nga xam ne moom mooy àq yelleef doomu aadama d'accord d'accord na mais Aliou tey tey bu ñu Macky Sall mayoon tey bu amuloon Covid bi laa lay wax nii tey. ah di nga gis li nga xam ne sénégalais da gis li nga xam ne mosuñu ñu ko gis parce que ñun tey dama ne dañoo ne amoon si benn si benn principe bi nga xam ne moom la ñu décidé woon mooy faire une tournée et également rencontrer les militant à la base pour ñu mën a jaay carte yi yi ñëw na déjà donc loolu ñu ngi ko daan def loolu lan moo ko arrêté mooy mbas mi moo ko arrêté d'accord naa Aliou mais Aliou Aliou xam nga lan lay wax mhm. xam nga yéen waa mhm. PDS mhm. kenn du werante ne yéen daara ju mag ji Mm-hmm. Mm-hmm. yéen mën nañu leen a mm-hmm. jàppee école boo xamante ni yéen ay formé kàngam yi nekk ci wàllum politique boo demoon ci gouvernement Macky Sall bi presque ñëpp mën nañu ne PDS ñoo fa nekk wala nga dem tey ci APR wala nga dem ci réew mi bu Idrissa Seck wala yeneen parti wala yeneen parti politique yi xaar rek wala yeneen parti politique yi euh, mais cadre yi ñu gisoon PDS ay Aliou Sow ay Fada ay Aïda Mbodj ay Macky Sall Omar Sarr ay non ma lim ñëpp ñëpp ñëpp ba xam ne tey PDS fi mu ne nii xanaa kay xanaa kay mu daal di am ay ay Alioune Djiba yu ñëw ay talent caché woon ñëwaat mhm. bëgg def ay jéego pour yegg fu ñu ñu yeggoon mais mais mhm. jamono ji moom PDS ga ñu xamoon mu mhm. bëri ay salañ salañ ak i feem du PDS gii ñuy gis nii nag Aliou waa mais di dinaa dinaa la dinaa la wax benn affaire c'est-à-dire aujourd'hui moom laa lay wax nii euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon au parti démocratique sénégalais te tey ñu dem ñoo ñëw man mënuma leen xam nga gis nga Euh, ñooñu mënu ma leen jàppee ay cadre gis nga cadre dafay am yenn valeur valeur yooyu mooy lan mooy valeur de dignité tey boo nekkoon ci benn parti muy Ablaye Wade mu nekkoon président de la République nommé leen à toutes les fonctions da ngay fàttaliku ñi nga xa ñoo may waxal nii c'était les plus jeunes ministres de de de l'Afrique n'est-ce pas Ablaye Wade jël leen teg leen ci kaw Ablaye Wade ak jeunesse biir dan laa liggéeyal jël leen boole leen ak euh, mag yi ñu liggéey ensemble wu am kóolute nag ci ñoom mais tey déception bu mag la am tey xoolal ñooñu yëpp tey bu Abdoulaye Wade perdee nguur bi ñoom dañoo dem rallier wu fële naka la ñu mënee tuddee genre yu mel noonu ñi nga xam ne ñoom nga may waxee Casa man pour man euh, tey même xale bu ndaw bi nga xam ne euh, xamul ni A nii B n'est-ce pas cadre la si benn affaire domaine par exemple mën na taxaw ne ñi nga xam ne ñoom ñoo dem maa leen gën parce que ñooñu au moins ils n'ont pas été dignes par rapport n'est-ce pas à comportement si li nga xam ne moom la ñu moom la ñu amoon bëri na ñu fa jógee bëri na ñu fa jógee dañ leen di tuumaal na yéen leen bundu xataal am na ñu bëri nañu wax ne Karim Wade leen bundu xataal non Alioune non Alioune Djiba non dama a joxe jógee tey pour nga gën si voilà et on a compris que ces gens là yi nga xam ne ñoom ñoo gën dem fële dañuy joxe raison bi nga xam ne moom nga nekk di wax ni mais ñooñu lu lu te mais ñun mais lu tee ñu toog fa muy metti muy neex si biir kër boo fa nekkee te nga xam ne yow yàgg nga yàgg nga nekk ak nit yi nga am mu nommé la à toutes les fonctions mais PDS PDS Karim Wade nekk fa mais Karim bu fa nekkee di ruube ñu jàpp ne baay ji gëmul ko dut Karim jàpp ne Karim moo war a doon parti bi joxuñu kenn gëddaam joxuñu kenn wormaam euh, ku ku am jafe-jafe euh, Karim Wade Abdoulaye Wade indi lay problème loolu tamit su dee am na tey euh, Euh, ñenn ñi est-ce que du ñu génn. non Karim Karim moom euh, Karim n'a pas demandé à être candidat c'est le parti démocratique sénégalais ñun ñoo choisir ni Karim mooy suñu candidat si benn congrès ñoom ñii nga xam ne ñu si bëre gën nañu tey ñu dem fële mais ñoom ñoo ñoom nekkoon nañu si jour boobu noonu si jour bu congrès bi bu ñuy voté Karim wat candidat donc mënuma jàpp ni ñoom ñu voté ko ba pare def bi si biir ñu la wéy kay sa Karim le problème c'est parce que ñoom dañoo bëgg a dem rek. waaw dem dem dem noosi ji comme comme Assane Ba nu mu ko waxee c'est le gouvernement du comp et la compalisation donc loolu moo fi ne amul leneen pàccoo moo fi ne ak compal moo fi mais compal moom daal dañ leen ko daa tuumaal bi ngeen yor nguur gi compal moom tuumaal nañ ko Ablaye Wade ba tey non ko bañ bañ tey nest pas nga xam ne Ablaye Wade c'est un dem il a il a promu n'est-ce pas des des des des des leaders dans ce pays et parmi eux Macky en premier mais tey luñ si gis générosité bu Ablaye Wade am mais Macky amu ko parce que tey munoo comprendre tey Ablaye Wade nekk situation bu mu nekk nii doom ji nekk Qatar Ablaye Wade mag mag mag nu mu nu mu à son âge devait avoir son fils à ses côtés mais malheureusement yërmande boobu la Macky sal amul. te loolu c'est c'est c'est pas bien du tout ñun suñu aada ak suñu suñ suñu aada sax xamul loolu. mais mais ah mais gisoon nañ fi ngeen gisoon nañ fi ngeen jubóog Ablaye Wade yëkk euh, ngeen jubóog Macky Sall ngeen yëkkale yëkkati ay loxo Masalikul Jinaan. Ablaye Wade dem Ablaye Wade dem pale seeti seeti ko ngeen defa fa déclaration palais. Euh, wala de ngeen a demandé l'impossible non Masalikul Masalikul Jinaan c'est c'est tout à fait normal parce que sëñ mu tax ñu ngi koy ñaanal euh, yal na fi yàgg te wér mais kilifa bi nga xam ne ñun ñun ñëpp suñu kilifa la donc li mu mënta wax rek ñun au moins dinañ si sukkandu ñu respecté li mu wax parce que kilifa bu waxee waa kilifa wax ay waaw la la la tudd Ablaye Wade en bon murit n'est-ce pas bu ko sëñ Mountaga sëñ Mountaga ñaanee ne mu juboo ak Macky Sall il est tout à fait normal que mu juboo ak ki nga xam ne moom mooy moom mooy doomam. waaw xam nga juboo juboon ngeen bu muy dem palais bu muy dem palais kooku il faut reconnaître que c'est pas le parti démocratique sénégalais wax wax wax naa wax nañ ko plusieurs fois qui est parti rejoindre n'est-ce pas. euh, Macky Sall mais c'est le cabinet du président Abdoulaye Wade n'est-ce pas ñoom ñoo dem rencontrer le président Macky Sall au niveau mooy l'actuel président au niveau de de de son palais. est-ce que jàpp nga ne bu démb bu est-ce que jàpp nga ne bu bu doon démb doon tey di ngeen ko Abdoulaye dina ko defaat. non Ablaye Wade il ne Ablaye Wade tout ce qu'il fait il ne Ablaye Wade n'a jamais regretté quelque chose man dégguma fu Ablaye Wade taxaw ne dama regretté lenn Ablaye lépp lu mu def rek il l'a mûrement réfléchi et l'a fait nee naa la bu muy dem c'est le cabinet de Wade qui est parti c'est-à-dire l'ancien président Abdoulaye Wade et l'actuel président Macky Sall c'est eux qui se sont rencontrés au niveau du palais ba ñu def benn déclaration n'est-ce pas communicative ensemble bi nga xam ne moom la ñu lire si si kii presse yëpp xam ko ñu lire si si kii presse bi yëpp xam ko donc euh, man gisuma si benn problème et bu ñuy woote aussi loi d'habilitation boobu c'est le parti qui a envoyé ses membres muy Cheikh Dieng le docteur Cheikh Dieng avec euh, comment dirais-je euh, Cheikh Ba Mbacké Bara Dolly dem rencontrer le président Macky Sall parce qu'il y avait un effort de guerre bi nga xam ne ñun ñëpp dañu war a jàpp si mbas bi si xeex mbas mi ñu ñu xeex donc loolu moo tax parti bi yónnee euh, seeni seeni ndaw ñu dem rencontrer Macky Sall pour ñu mën a xeex mbas bi loolu rek la ba pare ñu votel ko loi d'habilitation jox ko doole mu xew mag mais depuis lors deful benn évaluation bi tax ñu mën a wax d' accord mais Aliou euh, Aliou Djiba mbokk yi la ñu invité tey ci seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM muy am samedi bu jot bu euh, bu 15h jotee jàpp 16h mu nekk membre ci PDS bokk ci euh, fédération nationale des cadres libéraux Aliou ñu wax ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum déclaration patrimoine ci atum 2014 am na loi boo xam ne njiitu réew mi di Macky teg na ko fi ngir képp koo xamante ni dénk nañ la yenn cër yi ministres yi wala ñu jiite yenn institution yi da ngay dem def déclaration. sa patrimoine ci OFNAC wane li nga xamante ni moom nga amee waaye ci loi boobu tamit dafa am benn article neuf boo xam ne dafay tere ñu daal di koy siiwal euh, fan yi nag gis nañ ki nga xam ne mooy Idrissa Seck jiite euh, conseil économique social environnemental bi mu defee déclaration patrimoine euh, ñu gis ne dafa daal di tasaaroo ci ci ci mbedd mi ñëpp daal di siy jot yow lan moo ci sa sa commentaire Alioune. waaw sur la déclaration de patrimoine de de Idy bon man pour man la loi bi c'est tout euh, déclarer son son patrimoine bu muy dugg si kii pour comme ça bu muy gën ñu mën a xam euh, ñaata la yor kooku c'est c'est tout à fait normal c'est un domaine de droit waaw bu kooku mënuñ si wax dara mais nu mu génnee tibiti lu tax mu gën kooku on ne sait pas voilà donc mais li ma jàpp ni mais ba ma bi ñu déggee ni alal boobu noonu yëpp mais dañoo jàpp ni alal boobu jéggi dayoo la quoi c'est-à-dire que Idrissa Seck c'est un multimilliardaire alors donc euh, il n'est pas l'exemple de de Karim Meïssa Wade bi nga xam ne <laughs> moom la ñuy moom la ñuy tuumal ni donc CREI tey bu woon tey IDI en fait euh, voilà il, il aura des problèmes à le justifier voilà donc moi je dis que aujourd'hui il faudrait quand même euh, politique warul mën a nekk moyen de s'enrichir politique dafa mën a nekk moyen xam ne da nga war a dimbale sa askan bi da war a dimbale jafe-jafe askan bi mais quand yow mun mënuñu la fal tey nga ñëw nekk euh, à la tête de ce pays pour mun a enrichir ak say ñooñ ak say njaboot et tout ça au détriment n'est-ce pas du du du peuple sénégalais loolu quand dañ ko war a xoolaat ñu man ma jàpp tey Euh, alal yu mel noonu nit bu ko amee war nañ ko mën a laaj aussi n'est-ce pas fan la jëlee alal boobu noonu comme ñoom dañoo bëgg a transparence n'est-ce pas euh, mën nañ ko mën nañ ko amee si loolu il yi yow foo jëlee sa alal bi parce que aussi alal des milliards mais vraiment ñun sénégalais suñu on peine à avoir presque cent mille francs par mois mais loolu dafa dafa dafa doon lu lu doy waar te à l'entendement de tous les sénégalais bañ ko déggee mais c'est ahurissant dañoo ja dañoo ne ah mais ah indi nii la am donc ça veut dire que donc il faudrait que ba ñuy wax sax euh, que suñuy président yi ñi nga xam ne tey dañuy am seen kër ba ay ay ay États-Unis ak ay donc euh, ça veut dire que aujourd'hui yi tey nest pas tey bu bu continuer bu bu continuer def liggéeyam normalement am na ñenn ñi nga xam ne dina laaj loolu mooy vrai enrichissement illicite donc dañu war a taxaw ñu xoolaat vraiment suñu architecture euh, juridictionnelle ñi nga xam ne ñoom la am lu mel noonu ñu mun leen woo ñu mun leen laaj fan lañ jëlee seen seen alal waaye ba tey ñëpp xam nañ ñu tey n'est-ce pas lu ñu tuumal kon suñu président Karim Meïssa Wade loolu yëpp dafi tàppale la parce que tey kenn mënu wax benn dërëm bi nga xam ne moom la ñu génnee si li nga xam ne mooy traque mais mais euh, mais Aliou euh, déclaration patrimoine dafa am euh, loi bi euh, dafa mbenn benn boo xam ne dafay tere ñu siiwal ko ndax jàppoo ne loi boobu euh, wala article boobu war nañ see indi ay réforme maanaam ay coppite yoo xam ne képp ko defatee déclaration patrimoine dañ ko war a fësal ba sénégal yi xam euh, kii lan la am ndax tey par exemple tey Aliou Aliou Djiba tey bu ñu ko defee li nga xamante ni moom mooy ministre Aliou war na ñëpp war nañu ko xam ndax su ko defee bu ëllëgee buy laaj benn commune commune ba kat dana ñu xam ne Alioune bi mu dugg ci gouvernement bi euh, euh, xaalisam ma ngi tolloon ci cent millions def na cinq ci biir gouvernement bi xaalisam ma ngi toll ci cinquante milliards diggante cinq ans la fi mën cinquante milliards euh, su ko defee nit ñi di mën a sujeel seen bopp. mais su dee ah, ànd naa ak yow si si loolu ah parce que nit aussi également xam nga comme transparence rek la ñuy wax. waaw alors euh, si c'est parce que tey comme assemblée amatul rôle bi nga xam ne <laughs> moom la war a jouer au niveau de l'assemblée parce que l'assemblée son rôle mooy lan mooy contrôler l'action du gouvernement voter les lois mais également dévaluer les politiques publiques n'est-ce pas euh, de ce régime alors mais su doon assemblée bi tey rôle bi nga xam ne moom la war a jouer au niveau de l'assemblée amat euh, euh les députés rôle bi ñu war a jouer au niveau de l'assemblée amatuñu ko moi je pense que de faire mooy Euh, de dissoudre l'Assemblée comme Toussaint Manga ni mu ko waxee et aussi permettre à la population lépp li nga xam ne moom la jéego yu gouvernement bi di teg mais tey avec les les moyens numériques là yi nga xam ne moo nekk fii muy internet ak yoyu mais citoyen lambda bi nga xam ne moo nekk euh, Ziguinchor moo nekk Sonkefile war na mën a toog mu cliquer si li nga xam ne moom mooy euh, li nga xam ne moom mooy internet mu xam effectivement mooy déclaration patrimoine bu Aliou Djiba mu xam ne Aliou Djiba lii la am bu muy dugg lii la am bu muy génn donc bu ko defee moom si boppam war na mun a am jugement moom si boppam mën na taxaw dem jël ba bu doon am na euh, am nga alal bu jéggi dayoo jël li nga xam ne mooy dossier mu dem déposer ko au niveau n'est-ce pas de de du procureur. même même boo xoolee même tey boo xoolee boo xoolee tamit candidat avant ngay dem élection présidentielle. wala ngay hmm. dem ele euh, wala ngay dem sax ci li nga xamante ni tey moom mooy député bi. wala hmm. maire bi. est-ce que waroo mm. def déclaration patrimoine ndax tey par exemple Idrissa Seck su defoon mm. déclaration patrimoine 2019 mm. avant muy dem élection euh, loi bi permettre ñëpp jot si bu boobaa Sénégal yi a lieu il de réformer mhm. tout ça parce que tey euh, li nga wax ni ah man loolu yëpp euh, c'est un souci de transparence te man ànd si parce que lépp li nga xam ne transparence la te ñu war koo teg si mbirum réew mi moi je pense que loolu lu rafet la te sénégalais je pense que kenn bañul lu lu ñun ñëpp dañoo bëgg lépp lu ñuy def rek muy gouvernement bi muy homme politique yi muy opposition na nekk lu leer. parce que mënuñu mënuñu mënuñu teg kenn à la tête de ce pays te xamuñu parcours am te xamuñu euh, li nga xam ne moom la ameel donc euh, moom la am comme am-am donc moi pour man lu leer nga wax man ànd naa si ah. réforme yooyu yëpp war nañ ko mun a mën a jël à mon avis pour que ñu mën a ñu mën a jëm kanam. parce que transparence dafa doon lu lu am solo. si suñu si ah. suñu waaw mais est ni muy doxee am na transparence waaw man Macky Sall nu muy doxee franchement euh, am na yu bëre yi nga xam ne mën nañ ko mën na si dur suñu baaraam ñu wax nii amul transparence waaw parce que aussi nit ki il faut pas être trop nihiliste nga ne lépp lu mu def n'est-ce pas am na am na am na ñi nga xam ne aussi leer am na yi nga xam ne aussi euh, si suñu xel mënuñu ko accepter lu mel ni par exemple euh, si côté dossier juridique yi nga xam ne moom la Macky Sall di jël tey n'est-ce pas mu ne man maa conc maa jël sama loxo conc yenn dossiers yi ah donc ça veut dire que foofu amul li nga xam ne dafa leer am na li nga xam ne lu lëndëm la man Macky Sall mënul taxaw aussi mu wër adduna bi yëpp ne moom du def troisième mandat mu taxaw benn jour mu ne nii wii nii non tey mu ne non kenn mu si wax si parti donc loolu xam nga ba tey dafa lëndëm si si askan bi soo xoolee si côté. Euh, même même même même même justice tey il est euh, comme à Cheikh Amidou Dem bu demee benn la justice a démissionné donc je démissionne donc ça veut dire que y a beaucoup de choses yi nga xam ne mi ngi ci suñu architecture juridique donc li nga xam ne lu lëndëm la aussi euh, Boubacar Seye tout récemment wax na li nga xam ne mooy lu jëmee ci xaalis bu dugg suñu réew muy immigration clandestine mais lu mu def nañ ko jël ñu jàpp ko dugal ko si si si bi mais libéré nañ ko alhamdulilah. ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne euh, mi ngi mi ngi lëmbee ay ay Prodac ay a beaucoup de choses yi nga xam ne war nañ ko mën a wax. mais ay lu bëri leerul donc lu mel ni euh, coude bi nga xam ne moom la. voilà donc yu bëri en fait euh, soo xoolee sur le plan juridique muy sur le plan financier n'est-ce pas am na yu bëri yi nga xam ne war nañ ko mën a saytu. pour ñu mën a leeral askan bi. voilà d' accord Aliou Djiba yow nga bokk ci euh, fédération nationale des cadre libéro ci mm. euh, jàngale kan nga aussi. Euh, mm. ci mbirum coronavirus bi ak mm. école yi nga xamante ni tey fête yi ñu mayoon élèves yi dafay jeex lundi gis nañ ne gis nañ ministère bi ministère bi daat nay dakkal li nga xam ne mooy njàngum ngoon mi yow loolu lan moo ci sa xalaat. non man dama jàpp ni amul benn problème lu lu rafet la. en tant qu'enseignant euh, huit heures ba quatorze heures man gisuma si benn problème euh, et puis en plus euh, li nga xam ne moom la ñu bëgg pour pour ñi nga xam ne ñoom ñooy agité wu pour ñu mën a tëj école yi man dama jàpp ni école yi waruñu mu ko waruñu waruñu ko tëj instant bi parce que loolu du solution bu pertinent li ñu war a mën a def mooy mooy jël ay mesures d'accompagnement yu dëgër n'est-ce pas pour jàppale école yi e je pense que loolu buñ ko defee école yi mën na mën na mën na dellu place parce que daaw uh-huh, première vague bi première vague bi gisoon nañu ni dañoo tëj école yi au mois de mars à partir du 16 mars mais buñ ko tëjee qu'est-ce qui s'est passé école privée yu bëri dañoo nekk si si jafe-jafe ba tax na ñoom it dem nañu ba mënuñu fay seen i seen jàngalekat donc loolu indi problème entre parents d'élèves école xam nga am na école yu bëri ah mun naa la citer école yi mais jaru ko mais ñooñu am problème ak seen i seen i seen i seen i seen seen i seen i bailleur donc loolu mooy wane ni n'est-ce pas euh, école privée ñooñu ñooñu seen salaire boobu la ñu yaakaar tant que parents yi fay ñu ñoom it du am lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu yóbbu seen kër te ñëpp xam nañu situation Sénégal jafe-jafe yu bëgg a arrêter loolu loolu ça poser des problèmes. te enseignement bi nga xam ne moom la ñu war a distance te nañu jàpp ñun Sénégal euh, yenn dëkk yi nga xam ne amuñu même électricité balaa ngay wax connexion donc ce qui veut dire aujourd'hui que n'est-ce pas apprendre à la maison n'est-ce pas mën nañ ko wéyal mais quand nañu permettre ñu électrifier yi nga xam ne mooy dëkk yooyu yëp n'est-ce pas yi yi kii li nga xam ne mën nañ ko saluer mooy la visioconférence boobu xam naa ni du monde vont tendre vers le numérique vers euh, l'enseignement à distance mais euh, euh, Aliou protocole sanitaire bi ñu bari dañuy wax ne hmm. respecté wuñ ko ci école yi yow lan moo ci sa xalaat mais loolu loolu loolu man mënuma blâmer mënuma blâmer foofu état de faire ce que les d'école ah nañu jël seeni seenu matuwaay nañu jël seeni matuwaay imposer loolu ci biir école bi élève bi nga xam ne ñëw na école te solo masque mais nañ la dàq mais loolu c'est tellement simple ñu respecter li nga xam ne mooy mooy mooy le proto mooy le sport ki ñuy protocole sanitaire bi totalement mënuñu ko respecter si biir ko mooy distanciation bi mënul ne parce que suñu suñu classe yi n'est-ce pas dafa nombre d'élèves yu fay nekk ay presque soixante ak quelques ay élèves ñooy nekk si biir classe donc kooku naka ngay mënee respecter les les gestes li ñu mën li ñu mën a la distanciation mënul nekk lu ñu mën a def mooy que le élèves balaa ñuy dugg ñu teg chaque kii dans chaque classe n'est-ce pas école bi organisé wu à ce que ñu teg dans chaque classe li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy les les le kii mu tudd. le les mesures barrières yi mooy mooy mesures barrières bi yëpp comme waa comme les seaux là ak yooyu fu mais bu ñu paree ñu bu ñu duggee ci biir bi mais nañu sol seen i masque bu ñu solee seen i masque mais mën nañ def seen jàng correctement bu ñu wàccee ñu ñu ñu dem seen kër après ñu gunge leen ku nekk nga gën école bi dem sa yoon mais loolu mesure yooyu. n'est-ce pas il faudrait que euh, dans les écoles que les directeurs d'école ñu jël mesure yooyu bu ko jëlul aussi mais ñun muy directeur muy corps enseignant muy ñëpp ñu nekk ci biir école bi mais ñoo ñëpp ñoo nar a manko n'est-ce pas ñu ñu ñu xeex mbas parce que aussi il faut pas se dire que l'État peut tout faire ci ci mbirum école bi ci loolu ah mënu ko parce que ñoom lu ñu mën a jël mooy c'est des décisions c'est de faire en sorte que loolu bañ a kii mais quand même à notre niveau en ñu jël suñu jëm suñu matuwaay n'est-ce pas ñu xeex ko élève bu dugg classe solul masque ñu génnee ko classe donc élève bu ne dafa war a sol masque bu ko solee deux jours troisième jour bi mu solaat beneen masque donc il doit avoir deux masques donc bu ko defee muy alterner les les je pense que loolu n'est-ce pas xeex la bi xam ne c'est au niveau de la base au niveau des écoles que cela doit se faire. Ah. mais tëj école yi encore une fois n'est pas une solution n'est-ce pas pour pour notre ah, parce que nous avons trop perdu assez de temps te booy yi euh, da ngay xool ni cette année <laughs> seen njàngale bi da ngay te booy vraiment dañoo ñëw dans une classe supérieure seen bagage yi vraiment des na. donc il faudrait que même euh, voilà ñu ñu continuer si xeex bi ñun enseignants yi en tant que citoyen ñu gën a góorgóorlu ñuy jàpp suñu ndaw yi. parce que suba ñoom ñooy jiite réew mi donc man loolu laa amoon pour wax. si mbirum jàngale bi quoi. jërëjëf euh, Aliou Djiba euh, ñoo ngi lay sant bu baax di la gërëm. ci ci émission bi lan ngay tàggoo 30 secondes. waaw maa ngi lay maa ngi lay nuyu de maa ngi lay remercier bu baax si li nga xam ne moom nga ma invité di wax euh, Macky Sall aussi euh, na permettre suñu candidat Karim Meïssa Wade mu dellu si si réewam ndax euh, mënuñu comprendre ki nga xam ne yow yaa parce que euh, gracié nañ fii euh, ñenn ñi mais ñooñu yëpp dañoo des si seen biir réew mais yow kenn rek nga jàpp gracié ko génnee ko bitim réew nga ne bu ñëwee dina def contre par contre wala di nga ko jàpp wala yu demee noonu moi je pense que euh, il a assez il a beaucoup bénéficié sur les largesses du président Abdoulaye Wade tey dafa jot tey mu xool ne sa ce que sur son papa et sur ce qu'il a eu à faire pour lui et ce que sa maman lui-même l'a dit nest pa pas bu mu feebaroon na jàpp Ablaye Wade comme baay mu mu mu essayé n'est-ce pas bàyyi ki nga xam ne mooy Karim Wade mu dellu si réew mi n'est-ce pas parce que c'est un Sénégalais et il a le droit d'être candidat pour que vraiment mu mun a jiitee suñu réew maa ngi remercier ñëpp di jaajëfal ñëpp. jërëjëf euh, Alioune Djiba mu nekk membre ci PDS bokk ci kuréel gii di fédération nationale des cadres libéraux moom la ñu invité woon tey ci seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou jaawa Dial mu nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm ba samedi bi di ñëw incha allah ci beneen jataay.